إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu tax suñu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci aw yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nooy gërëm suñu borom bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu ci waa ci am kebbaaru xam-xam di waxtaanee dund ak jaar-jaaru saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñu mën a waxtaanee seen dund ñu ngi nii rawat na ci jamono bi ñu xool ba nga xam ni li ñuy tuddee xudwa xeet bi daf koo ñàkk xudwa mooy nit ci jëf yu baax li mu bëgg a def mu am ku nekk ci kanam koo xam ne jiitu na ko ca yooya ëppale ko ca ba mel ni saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy niitu ci kooku pour mën a jëfe liñ ko xam muy niitu ci kooku pour bëgg am gërëmal borom subhanahu wa taala lii yëpp wéle góor ak wéle jigéen mbokk yi doy na leen ci téere borom bi subhanahu wa taala fekk na leen ci alquran min xayri ma aaya ah للفقراء المهاجرين أقوى الذين تبوأوا والإيمان رضي الله عنهم وهم يوم يوم يوم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ak yeneen ak yeneen ak yeneen aaya yu bari kon borom bi subhanahu wa taala mbokk bi képp koo xam ni borom bi subhanahu wa taala tagg na ko kooku soxlaatul weneen tagg wuy ca gete woowee ndax bu ko ñàkkee du ko wàññi dara borom bi subhanahu wa taala dafa laaj ka borom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ñu fàttali rek suñu ay saxaaba yoo xam ni dañoo fàttee ca làng ba fekk ci fa ci làng bi mel ni moom yàlla am ngërëm ak am ngërëm ne itam gënal leen luñ mën ci am ba gënal leen seen bàyyee seen yaay ñu lay nit ñi ay nit ñi ci ñoom yoo xam ni sa kaadu laa sabbi ngir ko wóor ak lislaam dafa am ay aima yoo xam ni mën a wax la ñu am téere lañ ñu ñu ñu yenn ci xam-xam lañ wax ko ci ay téere yu wér di wóor bu doon nekk li ñuy sàmm ci kaw dee dee ko gëm ndax léeg-léeg li ëpp ci li ngay gis xawaayatul aadam léegi moom lu yoo xam dama adama comme ah loolu gën na ci jëla lay dox mooy nekk nit ci saa bu ragalee yàlla subhanahu wa taala dëgg dëgg ragal lu mu bëgg a mel man la ngay ñaan loolu mooy xam góor wala mu jigéen saa bu sàmmante ragal borom subhanahu wa taala ci sirr wala alal fii maa baxar wa fii maa baxar amul benn kenn rek lu am ab cër ci xolam lu dul yàlla subhanahu wa taala yàlla jëlee ko loo mën te loolu bu ñuy wax ay alfaaw yoo xamante ni daanaka du am rafet du am ay yéen ci xol yéen waaye day doon ay baat yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci làmman ñu jox ko xol bu dëgg koo xam ne li muy wax mu gëm la am gërëmal yàlla moo ko gënal lu mën a am ci kaw suuf ba dafay dem ba yi nga xam ne mooy li ñuy gis mu bëgg ko gis la muy gis rek mooy am ngërëmal yàlla ala ay mosin mu ko mën amee même bu laajee ba xam ne jaral lii moo tax mbokk yi jamono bi ñu toll nga xam ni mën ko wasaara na lool fitna bari lool njub néew njuba di bari la ngeen ci yàlla waxoon sallallahu alayhi wa sallam ci alquran sax di ko wax la yastawi alxabiisu wa tayyib walaw ajabataka kasratu lxabis maa ak mbon ñoom ñaar ba ci yàlla ko tax duñu ma xëy lépp fekkente ni bari waayu mbon daf laa yéen du tax mbaax la ma mbon kon mbokk yi ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm yeneen dañuy dellu te ñooñee nga xam ne ñoom la ñu gëm wala ñoom la ñu fonk waaye ab julit gannaaw yàlla ak yeneen amul ñu muy gën a fonk saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu daf leen teg nag baay lay bii di copier ci ñoom pour mën di jëfee sunu borom dëggal nañu ko nee nañu fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw bu nu jéemee di jubbanti ko ndànk-ndànk di defar ndànk-ndànk ba jéem di def la saxaaba ya doon def danañu xam ne ñun moom jindeeku nañ tege nañ ci yoon bi yàlla na borom bi soo tara defal ñu xam ngeen ni amoon nañ ay bind ci ñenn ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma fàttaliwaat lu sori lu yàgg kenn ci ñu dana laaj lu tax duñ def lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne anam kay suñuy waxtaane ay saxaaba yonente bi dañuy waxtaane sallallahu alayhi wa sallam ndax saxaaba yi doo wax ci seen biir ba nopp lu dul su duggee yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fukki yoon ak nangam te beneen bi ci des mooy lii daf lay wan su fekkente ni nit dafa nekk kóore ci xam-xam nekk ribi na buy kenn te xamul dëgg waaw parce que kooku bu ñu nee na jiw ko jàngal kon war naa war waroon lay sikk sàkk ci ñu ko ko jàngal ko ko xam kon yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane bi ñu saxaaba yi mooy waxtaane bi la amoon nañ yenn te góor ñi am nañ yenn ci jigéen ñi comme ni ñu ko doon waxee bu ñu laalee ay góor danañu laaj ay jigéen ndax ñoom ñoo bokkoon genn woon séparé amoon nañ yenn ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génnoon nañ ba dem ci kër saxaaba yi waaye tey ñoo ngi dellu si waat ci kër yéen saxaaba yow ngi jubal incha allah kenn ngi nii ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku ñuy wax juwayriya binti xaali mu ne bu ñuy nekk ni léeg-léeg jigéen ñi dañuy laaj seen wàll ndax mandarga yi ñuy wax ndax jaloore yi ñuy wax ndax mbaax yi ñuy wax est ce que ay góor rek ànduma yonente bi déedéet yëpp dañuy faral di nekk li ay góor waaye dama ne taxawaay bu am solo bu góor mas a taxaw ci lislaam dama ne ay jigéen taxawee nañ ndax kat ñoom ñoo doon ànd ak góor yi ci jàppale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bal borom xam-xam dañuy wax ni bu yàlla wax min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh lafdul jins la yàlla jëfandikoo foofu jëm nit rijal boobu ay nit lay teg waaye tekkiwul góor ndax comme góor mooy ab xawaamiya bu ñu nee góor ga yóbbaale na soxnaam dem kon juwayriya bint alxaaris radiallahu anha anha wa ardaha yenn jigéen a ngi nii joo xam ne mbokk yi misaal la yoo xam ne copier ko kat dafay dimbali jullit bu jigéen bi ci góorgóorloon ci wàllu diine bi juwayriya bint alxaaris borom xam-xam yi taarix yi dañ koy bàkkee moom kat yàlla ko xam daf koo defal tawfiqi kan bu bàkkee moom jëm ñi ñëw gi mu ñëw ci loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sabab la ci ñu goreel ñu boyal aw xeet boo xam ni ëpp nañ téeméeri buntu kër yoo xam ne dañu leen a jàppoon ay prisonniers de guerre war leen a jëfandikoo te jigéen ji bokk ci jigéen yi ëppoon valeur ci seen biir ba saxaaba yi yëgee ni yonent bi takk na soxna si kenn ku ci nekk dañu rus na maa jàppati gorob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kon xorom na ci mu yeggoon ñi daal boo jox muy wane ne saxaaba yi bëggoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ni la nga wax lu tuuti la waxoon naa leen fi Amr ibn al-As Abdillah Amr ibn al-As ñu ngi ko la ci sukuraat saxaaba yi dañu ko laaj doom bi dañu ko laaj ñu ko dañu bëgg nga comme yow fekkee nga yonent bi dañu bëgg nga wax ñu xar kanamu yonent bi ñu meloon sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallahi xam na ko Amr ibn al-As ñaata yoon la toog ci doon keppaar yonent bi yonent bi wax muy dégg bari na lool mu ne xaw ma nu mel lu tax ne dama ko joxoon orma rus ko daaw ma tigi di ko xool lu bari moo tax mënu ma leen wax xar kanam bi nu mel fii ak fukaaw ak fukaaw foofu la saxaaba yee kon si ormaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii misaal la ci moo tax borom xam-xam yi wax ni ma aalam kenn ci nga wax ni ma aalamu imraatan aadamu barakatan ala qawmiha minha xaw ma jigéen joo xam ne am na amal na barke amal na njëriñ aw askanam lu ko nii ndaw si amalee njëriñ aw askanam mbokk yi xam ngeen ni yàlla subhanahu wa taala ñi mu mooñi àddina bi ñii rekk la ndax ala yaalam man xalaqa wa huwa al-latif al-xabir mooy jël kii def ko mu nekk ñàkk kii mu def ko ku nekk mu xamul tey nga nekk ci ay caaxaan suba nga gindee tey nga xam caaxaan suba nga xam jub ah ahwal yi nga xam ne mu ngeen xam doomu aadama di ko dundee doomu aadama nag yàlla mën na koo nattoo mu dund ab diir nekk ci ceddo wala mu nekk ci caaxaan du xam lislaam du xam sunna waaye yàlla subhanahu wa taala bu ko demee ci moom njub mu gindee leeru iman roob ci li nga xamante ni moom mooy xolam dugg ci ay cëram di ko manipuler di ko defloo ah dafay wëlbatiku amal njariñ boppam waaye amal njariñ aw askan allahu akbar leeru iman saa bu duggee ci xol dafay suppi nit ki def ko beneen nit comme ni ma koy faral di waxee bu doon koo xamoon daaw boobu gisee rek li ngay jëkk a seetlu mooy moom dundam daa soppeeku ni mu doon waxee daa soppeeku ni mu doon jëflante ci dafa soppeeku lu tax ndax ngëm yàlla ci boppam moo dul mën a bàyyi borom ak cërëm lu dul def koo soppi melal ko ñu yàlla bëgg moo tax kon jigéen ji di Juwayriya bint al Xaaris di kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom noonu la melal bu ñu la nettalee démbam dañ lay wax ne sang la woon doom kilifa la woon naar bi ko yàlla mayoon nag ah subhanallah jiggi na dayo naar bi ko yàlla dénkoon moom Juwayriya bintil Xaaris jéggi na dayo maa xam ngeen ci àddina am na ñoo xam ne yàlla daf leen a may taar ba bu ñu solee génn nit ñi dañuy taxaw gisee taar man xam naa fii ci suñu dëkk bii nga xam ni boo ko joxee sax doo ko gëstu du turi ndax la fa ne ciy mbokk jigéen joo xam ne yàlla da ko dénkoon ci taar may ko ci xam nga dafa am ay mbir yoo xam ne day feeñal taaru jigéen lu mel ni njool lu mel ni xeer lu mel ni am jëmm dafa bokk yi gën a fësal taar xam naa moo tax gars yi bu ñuy tàmm sax di bëgg lu mel noonu waaye nag la bilaal waxoon rek wallaay borom borom fatt bii te am diine moo ma gën a njool mu xeex nii te amul diine ulaika kaana qulubuhum mamluatin bil imaani wa xubdillahi wa rasuli gis nga ndaw soosu yi nee nañ ma yeggoon na ci koo xam ne bu musaana génn sol dañ koy seetaan yàlla mi nga xam ne moomum ngëm te xol bu ko soof mu rokkat ko suñu borom xëy rokkat te xolam ngëm ba tey bokk na ci gën a mag ci doa yi nga xam ne loolu moo lay wan ne yàlla subhanahu wa taala ala kulli shay'in qadir xal sax ñi ko xam dañ ne ah kii da jërëm sol lii du si yàlla ndax melokaan wan ko xamee woon ndaw si noonu la yàlla dégg ko taar lool comme ni ko Aïcha umul muminin di ko nekk ne waaye mbokk yi di sédd yàlla subhanahu wa taala jeexintal yi nga xamante ni sédd yàlla daf koy def dafay feeñ ci ndaw si moo tax borom téere bi di wax ni kon da dogit kii daf may fàttali dogit kii daf koy fàttali wa Omar ibn Xattaab radiyallahu anhu ak meerab jaaykatu soow la xam ngeen xista boobu di wane muraqabatu llahi subhanahu wa taala fi l aamali wal aqwal wa Omar dafa xëy benn bis mu génne ko mi ngeen ko xamee xista bu gudd la man jox ko jàll mu génne benn dëkk ne mu ni kat soow bu ko kenn jaayam ci dëkk bi di ko njar ndax yëg na ni jaaykati soow yi dañuy njar soow bi def ci ndox nga jënd defe ne loolu ak fekk du moom amar benn génn benn xoraara ni képp ku ma yëgati ni ngar nga soow def ci ndox nax nit ñi dinaa la def nangam ak nangam ragal am nañ ko dëgg la waaye nag ragal amar ragal yàllaa ko gën xaraar ga wëlbati ko dugg ci biir dëkk bi yëpp waaw amar ko ragalam yàlla subhanahu wa taala ay amul ay comité de vigilance amul ay jiw bàyyi jiw amul yaay jiw xam nga na may def day bàyyi ba guddi jot mu wax ci ab lalam dugg ci biir dëkk bi déglu di xoolal boppam lay dal xabaru kal mu ayana bu kilifa yi jiite doon def nii du ma wax dina bonee nii da waaye du mel nii waaw amar ànd ak surgaan ba ñëw ci tegg miir mu dégg benn neex ci xaaju guddi lii moom xisab yi yu bari na ci dundu amar radiallahu anhu wa arda mu dégg meer bi naan doom ji gaawal nga kooj soow mi kooj ko gaaw def ci ndox balaa bañ a rajo doom ji ni ko yow xanaa déggoo déclaration bi Omar ibn Khattab génn démb mu ni soow bu ci kenn doon nee ci ndox ku ko def dama nag mu koy dimbale waaye doot la yow nga judd ba may waar Omar daa nekk fi yëpp fekk Omar ngay dégg ndaw si ni fekk ba mu yàgg mu ne ko su fekkente ni Omar gisu ñu day xamal ni yàlla Omar yi lii ci asamaan si dina gis waaw Umar ibn Khattab comme ni ko ahlu siyar waxee dafa tiit ba jom kan ba soog yi dégg ndaw si xas na doom si ah ndekete dégg dina jur buy waaye ndekete buy dina jur jur dégg xam nga dina lool buy dina jur dégg buy dina jur dégg xam nga buy moom buy la wala jur ñu macc waaye buy buy dina jur ku bon mën nañu gis mooy it dina baax jur ku bon waaye ndekete nag dégg dina jur buy nit dana bon ba saay saay waaye nag jur lu baax Omar allahu akbar alladi yafiru minhu shayatin koo xam ne yeggoon na ci mbaax ak ragal yàlla seytaan da lay daw ñu war a yéemu ci yow kooku kum yéemu sa kooku kum Omar mu ni ndaw sii dana xëy ci sama biir kër bi mu dikkee dafa xëy suba teel dajale ay ndaw mu ñu leen kaay leen seen bàyyi bi ci guddi dégg na ci noppam jigéen joo xam ne fi mu toll nii bu tolloon ci ah bi takk soxna dana ko jël yéen samay doom laa bëgg ku ne na ma kenn wax ku ma du léegi ma dem la batal góor yu baax yi nii lañ doon def dañ doon tànn jiw yi waaye boo dikkee supp kànge lépp fekk yëf yi ci marché ba rek nga ñëw rek xooli yi gerte yu nëb yaag yu kii yaag yañ war a def noflaay ak yëpp nga boole ko ji ko boo ko jiyee dara du sax du baax yow la wax fii ne ah man kat yar naa soxna yow la wax fii ne ah man de fi ne bëgguma tax soxna aatum ni kon may ma ko bëgg naa ko waaw góor a aatum boo gisee lu baax da ngay jëkkante parce que ko xëy li ci xayraat yi la bokk de ci xayraat yi baax yi nag la bokk aatum ni may leen ma ko bàyyi ñu ko bu subaa ma labatal la mu dem labatal ko ko ñu may ko kon nañ leen ci sédd yàlla ñu mën a jur ndaw si ba muy sédd yàlla est ce que séntu woon na benn bis fay si Omar ibn Khattab moo taxoon muy def la muy def déedéet gis nga booy def defal ngir yàlla yàlla moom gis na ko qul amalu fa sayara allahu amalakum wa rasulul muminin wa saturadduna ila alimi lgaybi shahada aafi jël ndaw si bi mu jëlee ndaw si amat moom doom bu jigéen bu ñuy wax layla ñu ko doon wooye ummu aasim ummu aasim moom moom meñ Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa arda ah kon ndekete inna al balada tayyib yuxriju nabatu bi idni rabbi ndeke doomu aadama soo bëggee am meññeent bu baax da ngay tee ci góor yu baax ya nga ji ko bëgg waaye boo dee ba ca tefet nga ji ko kat xalset ngaa bañ a am lu baax kon gis nga muraqabatullah subhanahu wa taala naka muy gis na damay def muraqabatullah ngir séentu ay intérêt déedéet waaye da nga koy def parce que yàlla subhanahu wa taala moo warlu boppam moo warlu boppam képp koo xamante ni góorgóor nga def ak ragal yàlla jëm ci moom yàlla defal say yi ci dunya la am xamal aaxira gis nga kon yii ay meññeent la yu lay wan sédd yàlla subhanahu wa taala lim doon def ci jigéen yu mel nii rawati nag liñ naan mbot mbotkaara ci xale bu jigéen boo xam ne xamut lu bari kon gis nga ñii ñi la Omar ibn Khattab meloon ku ragal yàlla kooku Omar moo ragal naan allahumma inna Omar laysa ahlan an tanalahu rahmat yàlla Omar ni mu bone kon la Omar ibn mu ne yàlla xam naa ne Omar ni mu bone Omar yeyowul nga wàcc ci moom yërmande waaye te yërmande baax ba bëgg a laaw Omar allahu akbar undur ila dikkati hada al bab mu ne man man Omar yow suñu borom buy ñaan danaan yow yàlla Omar ak ni mu bonee yeyowut yërmande wàcc ci kawam waaye te yërmande mooy yaatu ba bëgg a laaw Omar boole waale ci Omar su fekk Omar ibn Khattab moo doon wax loolu ak fi mu tolloo ci xolu yonente fi mu tolloo ci xolu Abu Bakar kon keneen ku dul Omar ibn Khattab moom lu mu war a àtte boppam su boobaa ah benn bis nee naa dafa jazakumullahu xayr jazakallahu xayr na anil islam te de yàlla la yàlla fay ci l'islam yi boobu xam nga l'islam yi yàlla mu ne ko déedéet l'islam ma defar ba ma mel ni ma mel kon islam lañu war a wax jazakumullahu xayr eh Omar jazakumullahu xayr ndax li nga defal l'islam mu ngi dee da nga war a wax eh l'islam jazakumullahu xayr ndax li nga defal Omar ba mu mel ni mu mel subhanallah Abubakar Siddiq boo ko musaanoo xam yow Abubakar nangam day jël laku kaala bi mu dugal ci bët yi mu jooy mu ne allahuma la tuaxidni ma yaqulun yàlla nit ñi li ñuy wax yow suñu borom xam nga ne nit ñi ni ñu toogee noonu laa baaxo baaxowu ma noonu kon bul ma jàppee li ñuy wax nga mbugal ma ci waxfir li ma la yaalamun ah maa ngi yu bon yoo xam ne bu ñu ko xamoon duñu wax li ñu wax kon yàlla nag ma ko baal wajaal ni xayra ni ma yadunnoon yàlla nag ma def ma gën li ñuy koo subhanallah undur ila hada sawabu kon ñun seen ku ci nekk dañuy bëgg aw sàtt yaa def lii yaa mel nii loolu sax balay neex nag ko fekk déedéet ak xalaat dañ daan daw ñu leen noonu bal rot na ci sunna nit ki su fekkee dañ ko tagg sax suuf na la ko fa yëg ci sa génn ci ah loolu yéen moo ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi Omar ibn Khattab nii la meloon léegi maanute ak ragal yàlla ba léegi li muy def ci jeexintali doomu aadama yi benn bi benn waaye dafa tukki ba ñëw dajee ko Omar ibn Khattab Omar ni ko dama bëgg nga nekk ñu ma loo gis ci réew mi boobu mi ngi bëgg natt ba ma xool ba xam fu liggéeyam toll loo gis ci réew mi mu ne ko soo bëggee ma ma koy ma taxañ ko soo bëggee ma taxañ ko soo bëggee ma teqañ ko taxañ mooy ma tënkal la rek ay baat soo bëggee ma teqal ku di détail dina détail mu ne ko déedéet teqal ni day jël waxtu taxañal ma rek waaye mu ne ko man day maa ngi fekk taraktu bilad adzalim biha maq adzalim biha maqbur wal mazlum mansur wal ghaniy mawqur wal faqir majbur man de li ma dañu sama bët mooy ku tooñ ku nekk de gis naa ñuy rëq sa ndigg kuñ tooñ ku ne gis naa ñu téyal loxol dimbal ah ku ku am gis naa ñuy téye sa loxo pour nga ngay joxe ci li nga am te danañ la sàmmal li nga am waaye ku ñàkk gis naa kat ni di ko fajal ak ñàkkam ndeysaan Omar ibn Khattab bënn ba di jooy mu ne wallahi la an takuna albiladu kulluha ala ma wafaqa hada rajul ahabu ilaya mimma talaat alayhi shams mu ne réew mi yëpp mel ni ma waaj ni taalal moo ma gënal ñu may ma àddina li ci biiram ndax boobu yëg ñu ni kon lii mooy wane àddina am ci am gis nga loolu nag dafay def ay jeexintal ba ci say doom ba léegi maa ngi lay wax di jëm ci baraka bi nga xam ne ndaw fii indil na ko aw askanam ragal yàlla saa bu amee wallahi yàlla da lay fay ci àddina ay mbir yu seen taale gis nga tëb bi xam nga dañuy wax ne wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du yenu bàkkaaru kenn dëgg la waaye raf na ci akar yëpp yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne kii mooy yàlla di def ay mbonte mi ngi fàggul aw askanam gaab boo xam ne mën na saa topp ba ci juróom-ñaari ci ki def mooy yàlla di ko toon mi ngi fàggu ay gaab yoo xam ne mën na koo topp ba ci juróom-ñaari ci borom xam-xam ni loolu jotuwut ak wala nabi waa nabi rokla dara xam nga lu mu doon misaal na xam nga lan la seen baay taxawaalu woon woon mi ngi doon liggéey am na xaalis ngeen bi di nekk am lu am xaalis jeex seen baay daa ma sura baay ak woon lañ la woon amul dara ngeen di nekk wala daan jeex seen baay ko fàggu waaye borom bi subhanahu dafa def maanaam jeexinta yi mooy yàlla am comme ni ko Abu Hurayra waxee mbaaxoon sax wala kan dana wax su boobu doomu aadama ndax yow yaa tax sa wàcc rek ndax sa bàkkaar yi bari kon gis nga gaaf bi ni mën a yàqee waaye maa mbokk yi noonu la mel gis nga Amar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu soxla na jële ci Maalik ibn Dinaar mu ni sàmmkat yi nekkoon ci àll ba benn bis dañoo daje li ñu daje ñu ni man hada alxalifatu salih alladi qadima ala annas waaw amirul muminin di faat moom su ko wuutu kumu su ko wuutu kan la sàmmkat yi nga xam ne ay innocent lañ comme li ci dëkk bi fa qiila lahu bu maa ilmukum bi daal yéen sàmmkat yow yow yow yow yow yàq yow daal lay dagg yow lu fa yow fii moo jiite kee yéen lu ngeen lan moo xew ba ngeen di laaj loolu من إنا إذا قام على الناس خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شأننا لا حول ولا قوة إلا بالله من يوم تام كدين من يوم سجل bu amirul muminin bu baax faloo ñun dañ koy yëg ñun luñ ko yëgee ñu dañuy seet ñu sàmm buñ daan sàmm ci buur bu baaxul li ñu ci lii di lekkal muy ëpp te bu amee bu baax ku fal dañuy seet lu at ñu yëpp doo ñàkk lu mag benn bay parce que julli yi sax dañuy mel ni dañuy maandu ñoom it di sàmm ba duñ nekk suñu julli am na riwaaye benn sàmm moom moo wax amirul muminin benn sàmm moom moo wax ni ko yaa amirul muminin laqad laqad xadata indi shay'un ajib ma ne damaa gis kéemaan tey mu ne ko lu xew mu ne ko fil da daan dikk fekk jur gi mu di ko lekk léegi damaa ñëw fekk daal gétt ak till bu fanaan ci gétt gi ba fajar jot ci laalu gën till ma ñëw mu ne fit dem yoonam te la lekkul dara ah mu ne ko laa ajaba fi dalik fa laqad aslaxtu ma bayni wa bayna rabbi fa aslax allahu ma bayna alzikri walganam mu ne ko loolu kéemaan néew si ndax man Omar ibn Abdul Aziz damaa sédd sama diggante sama borom ci ñi may sàmm ba du ma leen tooñ du ma leen def lu ma war a def yàlla sàmmal ma diggante ci lëg bay diggante ci lëb xar ba mu ne dootu ko toll si lii maa ngi namm ci commission yi ngir nga xam ni gis nga ragal yàlla ak góorgóorlu leeru njum saa bu tàbbee ci sa xol rek dafay def ay jeexintal ci yow waaye def ko ci askan wi nga bokk loolu ci lañ jëm ci ndaw si nga xam mooy Juwayriya bint al-Haaris as-sahaabiyatu al-jaliil zawjatu habiibillahi subhaanahu wa taala Juwayriya bint al-Haaris borom xam-xam la ñu mi ngi juddu ci arbaata asara aaman qabla al-hijra balaa yonent bi di gàddaay jóge Madina jóge Makka dem Madina ci fukki at ak juróom ci la Juwayriya bint al-Haaris judd ah ñu ngi sosu ci aw askan woo xam ni askan wu ragal yàlla la askan wu wu wu am àddina lañ loolu du ñu ay jëli waaye ñu am àddina lañ ñu tedd lool ba pare nekk ay kilifa ñu wax bani mustalifa bàyyi moo nekkoon alxaaris ibn abi duraa moo tax ñu naan juwayriya bint alxaaris alxaaris ibn abi duraa moo nekkoon baayam ba nekkoon moo nekkoon kilifa bañ ba mu continué noonu kër kilifa mu ko fa juddoo laa tax kilifa rek la mën a doon mu dema dema dem ba yàlla wërsëgal ku ab borom kër bu ñuy wax mu taabi ak ibni Safwaan mu taabi ak ibni Safwaan moo ko takk te kat pour war la li ko yàlla dénkoon ci taaru àddina góori jamonoom dañ ko doon xëccoo jamono jooju waaye góor yi ñoom loolu rek lañ jigéen ci taaru waaye jigéen ci taaru baax na lool nag bénéfice ko ragal yàlla la waaye ragal yàlla ko gën ragal yàlla ko am na gaa yoo xam ne bu ñuy tànn soxna dañuy bàyyi ragal yàlla di tànn taaru am na ñoo xam ne boo leen génne génn soxna nga ne ñoo taaru nga di leen ko ñëwee day waaw bee leen ñëwee ci mbedd mooy bu leen di ñëwee ci biir kër yi li may xam xam naa ci dara wala isaara ko takk li man am gis nga de da ngay gis nit mel na waram mel ci taaru ci lii ci laa ci lële dama ni kooka laa wax dama ni borom bu bu fas bii nga xamante ni sax dafa subhanallah comme niñ koy waxee li ñuy tuddee ñaaw te yàlla ko bindal ci ñaaw la ndax boo waxee ñaaw rek kon dëgg dëgg yaa ngi bëgg a dàq li suñu borom taxal xalaqal insana fi ahsani taqwim ci melokaan wu rafet moo tax waa ji ba mu ne yent bi sama tànk bi daal yi dañu ko yeewa kullu xalqillahi xasan yàlla lim defar lépp rafet fekk waa ji dafa amoon zaaru li ñu tuddee baras yaram wi di tub di feebar waa ji au lieu que mu sikkal tubéy bi comme ni ko yant bi jàngalee mu bàyyi tubéy bi muy buubu mu ne yant bi man gis nga sama tànk yi dafa sell damaa lii damaa laa moo tax ma di ko nëbb mu ne ko yee dama yëkkati sa tubéy ci digg yeel ba kullu xalqillahi xasan yëkkati sa tubéy bi ba ca kaw yàlla lim bind lépp rafet lu ñaaw amu ci gis nga yooyu yi ko xaalis noonu la mel ñu koy xëccoo ba waa ji nga xam mooy mu kaafia ibni safwaan daal di ciy jot ñuy doom baayam la ñuy doomu ligaayam la yàlla loolu Juwayriya bint al-Haaris ànd ak moom ndax Juwayriya bint al-Haaris mas naa reer ba regg mu tëdd di génn génn ci yenn ñeer ba mu xalaat ne bis dana ñëw mu nekk soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet déedéet ñun doon ñëpp ñu ci ëpp na kenn du ko koo kenn ku ci nekk rek daf lay dikkee kéemaan waaye daf lay dikkee bett te it nag xam ngeen nag lan moo gën a neex lan moo gën a yaakaar lu ci gën a bi jigéen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ko di ko denc kooku day bu fekkee li ñuy tuddee chance am na ma ni kooku kon daa am chance kon ah l'islam commencé di wataaroo ci niñ ko xamee ci daawam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah yonent bi di woote l'islam di wataaroo te bokk na ci mbir yi nga xamante ni jullit ñi yitti woo nañ ko mooy ñetti mbir bi ci nekk mooy sulatul ummati billah ñaareel bi mooy sulatul ummati baaduha bil baadi al axar beneen bi mooy sulatul umma bil ajanibi anha mimman la yadinuna din al islam l'islam dafay njëkk yittewoo diggante nit ki ak borom ñetti baat yi ak am solo tax na tudd ñun ñuy jéem a daaw nañ ko bàyyi xel ba mbay ci sa yow tànk bala ngay laax jaay da ngay laax yekk ba noppi waaye ngay waaj a dee di laax li jaay kat déedéet baaxul da ngay dëkk yittewoo def diggante ak sa borom nga defar ko ba man rasax ba nag defar ko ba mu jeex nga xam ne yow foo mën a taxaw ku nekk ci diggante sa borom moom pare nañ ci def nañ ci lu ko gën a rasaxal kay la ñuy yokk soo paree nga fexe sa mbokk njëriñ nii la jëri nga rasaxal sa digganteeg moom soo paree nii jeegul de damaa war a fexe am esprit nit dañu war a ñëw ci l'islam comme may woote mbokk yi ñoo nekkoon dimu saxaaba kenn ku ci nekk da doon bëgg l'islam moo tax saxaaba yi doon kontaan bu ñu amee gan ak taw ko ak bu ñu amee waaju tuuti ndax lu tax ñun dañu doon yàkkam ci ak kontaan ci koo xam dafa doon nekk ci lislaam kon li nga xam ne mooy dox diggante nit keeg borom loolu taxoon na yeneen lu mu ne képp lu mu njëkk a defar Madina mooy jàkka ja lii dox sama diggante ak sama mbokku jurit moo tax yeneen bi njëkk a def mooy al uxuwa boole leen ngeen nekk ay mbokk yow mii kat maa tudd jóge bàyyi say bagage kii kat Madina la nekk kon naa leen boole lii moo taxoon nga dégg ñu naan diw diw nekkoon comme ni ko olof yoo xam ne jëkkoon ci saxaaba yi su dee ci baatu olof bi noonu mu xam ne ci këram jox la ay géem nga cay not waaw subhanallah lii rek lii rek lii rek boo ci nattee suñu ko lee far al farqu shaafia alladi yusbihu al mashriq bu'd al mashriq wal maghrib bi ñu nekkee ak saxaaba yi sama kër gaa ngi ni yàmb la gaay sama alal gaa ngi ni sama saabi yaa ngi ni ñaar la jëlal benn yaa xaw na wala loolu ah man de gisaguma ko te dafa war a am xam nga ni lan mooy ko rek muy nit ki dafay tàggat yàlla ci xolam ba lépp lu mën ci ñëwee dafay tuut ci ay bëtam loolu pour mu joxe ko wala mu pour koo ko seen bi naan dara ci man waaye déedéet pour ñu joxe yàlla wala pour ñu bokk ko kenn wala pour ñu bokkaale ko moo yomb parce que lu tuuti la ci ñoom suñ lii ay leen ko faj suñu xol bi moo tax pour ñu joxe ko joxe pour ñu bokk ko joxe hakada almiqyas nappikaay baa ngi li nga xam ne mooy dox sama diggante ak ñi nga xam ne duggul ci lislaam loolaa andi woon xeex yi xaraw yi ñuy dem di di woo ay nit leen jéem a duggal ci lislaam ñii nekk la pour bëgg leen soxaree taw leen ay jaar déedéet waaye dañoo bëggoon nit ñi dugg ci li nga xamante ni moom mooy lislaam bu ko defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaram saxaaba yi ci uslub bii ban uslub la yonente bi yaram saxaaba yi mooy amu ci kenn koo xamante ni dafay dund ngir al xuut wal ladda man naa am bànneex naa am lu ma dundee déedéet borom téere mu ne kon muslimuun asxaabu aqidatin tuxaddidu silatahum billah billah julit ñi ñu yore pas-pas lañ yoo xam ne moom mooy nag ak a jege ak a buux di yóbbu ci nit ci jege yàlla subhanahu wa taala mooy wane seen xóotu gis-gis tamit ak wane niñ soree àddina amul kenn koo xam ne moom dafay ñaan na am li ñu tuddee saraf muy kenn nga comme daf deram bañ a sàmm kenn déedéet waaye ñoom kenn ñuy sàmm seen jër sàmm seen jër mbokkum julit sàmm seen suuf sàmm seen suuf mbokkum julit sàmm seen i ak sàmm seen ak mbokkum julit te nee nañ buñ ci naree nekk di mer te yàlla taxu ñoo mer man rasa ak bi xadam yi yàlla bu sama tànk yi mën a doxal allahu akbar da ngay dégg ci wax loolu su dee damaa nar a dund nekk nitu intérêt fala sa ak bi xadam yi yàlla na sama tànk yi far lagat du ma mën a doxati wala faraxat yi ay sama xet yi sax bëgg na ñu yëngoo ci su fekkee damaa nar a dund man man kenn comme ni ma koy waxee ci xistam Abdullah ibn Xuzaafa ah te xistam bu gudd boobee keroog ba ko kisraanee kaay rek léegi comme dernière solution mooy nga ñëw foon sama bopp ma goreel la mu ne ko déedéet wa an jamii usaar al muslimin ñun julli ñi yareewul na intérêt personnel man nga foon sa bopp nga goreel ma sama bokku jurim nekk ci biir safar bi lu ma daj ci métti jaral na ko man damaa foon sa bopp ne loolu wàññi ma dara waaye boo ma bàyyee da ngay bàyyi jullit yëpp Kisra xool gauche xool droite xam ne kii daal wax dëgg yàlla na ko bàyyi mu dem moom bu dul ko ñuy tàmbale sax mu ne ko waa baax na Abdoulaye Moussa Zaka ñëw foon bopp Kisra Kisra ne génn na des ñuy dem allahu akbar faaruqu hadihi al umma ah Omar ibn al Khattab yàlla dafa génn beneen décret xam ngeen décret bi lan la mooy yéen paa yi danaa génn sa bis sallam tey kaay nga foone ma bopp Abdoulaye Moussa Zaka fayee ko bor bële انظر الى هؤلاء القوم كل في في sila sila bi doxoon seen diggante seen borom ak seen bokkum jullit ñu meloon lii moo taxal mbokk yi ñoom ñu doon dund ci nii di fàttalante di jàmbalante di yërëmante waaye di jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi dul ay jullit yéen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nag di mu installé ci Madina tàmbali di woote nag tey nag yaatu dund gu mat sëkk la yaatu dund gu mat sëkk bu leen fàtte nii ay juif ak i chrétien ak i ak i ak i ak i ak i ñu yoon di Madina te yéen ci nekkoon amiru Madina bu dee ma naa wax baat boobu jiite Madina nekk nabiyullah pour wan ne yaatu dënn bi ci l'islam léeg-léeg bu may seetaan débat yeeg ñoom tam ñuy wax yaatu dënn yaatu dënn di ko subhanallah ndax xamees na ci kaw suuf ku yaatu dënn waxuma la waxuma la ku yaatu dënn ba gën koo yaatale l'islam waaye dama naan man ndax xamees na ku yaatu dënn ba mel ni waa l'islam yeneen bi ñu nekk ab yeneen bi yàlla jiite madina am sañ-sañ mën a def la muy def génn ñi muy génne te dara bu ko ca fekk parce que yor na puissance yor na doole waaye mu xajoog yahudi ci madina xajoog ñi dul julit ci madina ah ba pare nag bépp julit bu ku dul julit xeexooñu xasooñu dimbalewoo ku ñuy xeex te nam ngaa joxe galak kenn du la dóor kenn du la laal kenn du la rey te bu sa kër doon tàkk julli ñu ñëw fay la ci la kon li lii bokk bu sa kër doon tàkk tey julli ñi dañu ñëw fay la te jullit bu la tooñ bu ñëwee yonente bi àtte dëgg sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen ci tafsir ba li passé sahabi bi daje woon ak ab yahud mu naan mu ne wala gis papa Moussa ala alamina mu ne ko xaram falaata ko wax wala gis papa Mouhamad nga naa Moussa yahud di ñëw ci yonente bi boole ko sallallahu alayhi wa sallam gis nga waaw lan lan moo nekkoon ci xel mu yëpp ba muy boole bi mu ci seen kilifa mu ñëw ci yeneen bi ñëw kilifa bi te moom gëmul yeneen bi parce que yeneen bi leen wala maam te ku ñu tool boo gisee ma delloo mu di mu ne ko dafa am ci sa saxaaba yi kenn ku ma fekk mu ne ko lu ngeen di mu ne ko damaa toog naan wala di safa Moussa ala alamin mu fekk moom doon moom talaata te naan waxal wala di safa Mouhamad ala alamin yent bi woowaa ji mu ne ko bu bu lëggee bu ko fekkate ah yaa ko tonta te it sax it bu ko kenn nekkati di ma gënalanteeg Moussa ndax yent yàlla Moussa alayhi salaam allah xëy bu nit ñi xamee seen xëm boobu malaaka bi yuuxoo yent bi nee na man maay njëkk a jékki te su ma dekkee damay fekk Moussa taxaw ci ma arab yi sunu xaw ma daal xamut xaw ma daal ximbaliku njëkk ximbaliku xaw ma daal yàlla da koo bàyyee xam bi te tuur kon nag bu fekkee naan man maa gën Moussa nangam noppi lañ ciy jëlee gis na maam ci bi yent moo ko mayoon saxaaba yi ridwanullah alayhim may ko ñi nga xam ne ci ñoo ñëw dul ay jullit kon yonent bi saa sallam commencé di daawa daawa bii nag islam commencé di wasaaroo moo ci indi ñoom oxat liñ leen badar liñ leen xayba liñ leen xandax liñ leen murayta liñ leen tabuk liñ leen Xunayn lim leen ah daay allahu akbar yaa daal seen bopp yi xam naa ne ah da ngeen di séenoo bopp jën bopp jën di ñëwee si daara bi daa wax bopp jën boo koy faral di si séenoo doon neex na xeet yi ngeen xam yéen di ko xeex sallallahu alayhi wa sallam lii moo ko waral tey dañoo ànd ba yërma di ma tëkk nag allahu akbar bu ñu daan dem xam ngeen lu yent bi dénkaane doon ko doon loo ko Abubakar màggat mu nekk ci xaymaam di jaamu yàlla dañuy jaam muy dudul julli bu ko kenn rek bokk kon kan moo gën a yaatu dem ci màggatum yéefar yi nga xam ne moom xeexu dëkkut tooñu dëkkut dara dafa toog ci xaymaam di jaamu yàlla bu ko kenn rey jigéen bu ko kenn rey xale bu tuuti wax bu ko kenn rey est ce que wax yi bokk nag ay nit yoo xam ne ñoom ñooy woote woo xuma droit de l'homme xuma droit de xuma seen baat yooyu nga xam ne daanaka doo ko sax a bëgg a wax doo ko bëgg sax a mën a wax ndax loolu mooy yërmande yaay woote droit de l'homme yaay woote ni yow yaa am yërmande ci kaw suuf ak nit loo jotee joteeg moom nga tiim ko ay daanu sama wala nga tiim ko ay nitin di dóor ay xale yu toll ci namp seen bopp ñuy fa ñuy faatu lii mooy droit de l'homme lii mooy ay tàcc kay doomu aadama yi xanaa dañoo muur seen bët yi lan moo tax lii duñ ko duñ duñ duñ ko leen waaye lii la yéen ci doon jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo ma tuddee sax boo ma tuddee sax ma ne eh laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ba ma sañ a rayaati Usaama ba mu fekkee waa ji di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba dàq ko waa ji ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah mu ne ko sama jaas bi tax nga di ko wax waaye tey nga dee ba ma fekk la fekk ko pare sax xale ba jeeg baat xabaar bi ñëw si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahu akbar waa ji lan moo tax lan moo tax mu ray ko du bëgg ngërëmal yàlla est ce que soxor wala yéen wax déedéet bëgg ngërëmal yàlla kese waaye mu dikkee yéen bu farluwee loolu yéen bi lim ko wax mu ne ko ay Usaama boo jëm ak laa ilaha illa allah waale Usaama ne dem naa ba répété di ko yéen bi répété dama bëggoon sax nekkoon ab yéefar affaire bi mu xam su ko defee tey laay doogu ji dañuy toog ba defe ni ñu ngi koy bëgg a fàtte ne ah Usaama boo jëm ak laa ilaha illa allah waale yéen ñooñu ku ne xot dund arab yi xaleen fii saay saay la gis nga kon yaar dund ji ci l'islam rek nga koy fekk l'islam di tasaaroo di tasaaroo ba nag am biir bu ñuy wax banil mustaliqa foofu nag yéen ñii lim xasawaat yi banil mustaliqa ak murayja ak yenn gi la banil mustaliqa ak murayja benn xeer bi lañ ñii ñoo ko tuddee banil mustaliqa ñii ko tuddee murayja te la tiim wàccee ci lañ tuumaale woon Aïcha te la tuutul mu naan pour waaj xeex bu am solo bi parce que ay mbir am na am na loolu am jiir bi ñoo banil mustaliqa mu nekk jiir boo xam ne ñoom kat moom ñu ngay géew ci seen kéemal ba seen sértéerlu ba parce que l'islam yëgteegul ci ñoom ah seytaane nag di leen di leen di leen ruux di leen di leen ñoobu di leen wàññi yéen kat ñu am doole ngeen Muhammad mënul leen dara ba nag nag nag nag ñu commencé cokkaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee gaynde mu ngi tëdd nga romb ko moom mu déggul dara mu ngi seet si nga romb nga jàll nga dem moo gën a di xooloo waaye gis nga ko fi yëngali mbaa nga yëngalu génn mbaa nga taw moom sukk julli ñu loolu lañ doon bañ moo tax mooy am ba tey gis nga julli ñi soo bëggee dund ak ñoom jàmm bu leen laal xoolal rek li ngeen dégg tey réew sàngam ñu ne dañ fay tere muuraay def dafa ne islam daal la wax dam la ndoxam rek mu ne إذا أراد الله نشر فضيلة قويت أباحت له لسان حسود yàlla daal saa bu namee ceqar yi xéewal goo xam ne dañ koo taxañoo ci làmm ni ku ñaan la koy jaaral waa ji joxe misaal mu ne gis ngeen suuraay suuraay moom kenn amul yéen malik moom fa yëg ci taal rek nga xam waaye boo nee fa yëg ci taal mu génn xet bu neex ku ko romb waaye boo jëlee ba suuraay moom yaa ngi koy siiwal da nga ko doon lakk waaye nga jaaral ko siiwal ko noonu la lislaam ne gis nga fi nekk nii ak fu mu mën a am nii xeex lislaam ak a nangal bu lislaam ci xar ni ko rek def ay mbir benn benn borom xam da koy misaal mu ni kii la rasul la xam ngeen rasul gis nga rasul looy gën a nag di gën a nag moom moom musibaa nga lay xaar gis bu tekkar ñi ko tëj si ci mbi lay jëkkëtal doog a dem keneen loolu la lislaam nekk ah gars yi commencé di sokkaat jullit ñi sokkaat nga yegg ci bañ yebal benn waay mu dikk seen biir di espionné jullit ñi nag yàlla dafa leen taw fii suñu jàpp ko sama kii daal di koy reen ah foofu nag ci la gars yi xam ne ñu ne kafin fawut te foofu nag mën naa ko wax ko mooy mbokk yi man bàyyi xel ba noon noon l'islam stratégie bii lu yàgg la xam la Muhammad sal an fépp mbooloo nekk di yëngu ci l'islam ñuy jàng sa jàngale wala dund seen sunna wala seen mbooloo nangam sàngam dañuy jël benn waay defar ko ba mu jekk ah kéréel kéréel ko ci mooy si boo xam ne gëmoo ko dan la koy kereelo commencé di ko diwa ko nangam pour mu rëy ah jàngal la cëkkal ah wan la ne nag moom julit moom cinq ci cinq da ngaa war di toog nga yor melokaan woo xamante ni gis bëgg jëcci ñu defal la ba nga jëkk wala jëkk ak saay saay boo xam ne intellectuel la bu ñor ba nga xam boppam daanu ci suuf ñu muur ko def ku mel nam war a mel ni ko nag yëgoo ci ñun ngeen fa sëf ci biir mbooloo bi bokk ci yëpp lu yenn di foofu na fanaan ci ñun boo demee sax am na mbaam loolu amul sax boo demee waxatuma sax boo demee ndax boo demee day mel comme naa bëgg ci sax am koo dem am na fa bopp mu jeex waaye dama ne loolu jëru ci jëru ragal wallahi boo ragalee yàlla subhanahu wa taala lépp luy lor jëm ci ci yow yàlla moo lay rëqal ndiggam ba wey loxo ba dam moo tax yeneen ñi li ci ëpp ci sooy la dam mujj xam nañ ci ay nit yoo xam ne saa jaaree tuuti nit ñi lañu waajoo xam ne fii ci Dakar gii ak borom xam-xam bu ñu toog di toog di toog di toog ba far yàlla jëndi ko ci sunna moom moo toog waxal ko boppam ñëw juma dem ñëw juma nangam nangam ak dar si yeeg yëpp damay enregistré ci yóbbu boobu dañ ko jëlee waaye nag ndekete ah l'islam jii daal ay koton mënu koo tànc nopp mënu koo teree daal bu yàlla nam ne nga jëndee ko man ni sigi loofu foofu wal muxtim gis nga jëru ci jëru ragal nelal ni nga war a mel rek usduq maa rabbika yasduq rabbuk dëggul sa diggante sa borom ak yàlla dimbali la li ma dig dana ko def wa kaana waadullahi mafuula te moo dig ni dinaa dimbali ñu gëm yàlla wa kaana xaqan alayna nasrul muminin bul ci defal te yàlla tax ba tax loo ci gis ay pexe yu bëgg la ñuy def léegi la ñuy jël sa borom xam-xam tey nag léegi la jaay léegi léegi sax ñu guddra fitnaal nag tuur la xala yëpp ay xeex la yoo xamante ni mooy protocole yi nga xamante ni alaykum laanatullah yi nga taabee ila yawm alqiyamati moom la ñu def ñoom juif yi gis nga ñu ñebal benn waay ñu ñëw waaye dugg ci biir dëkk ba julli ñu jàpp ko daal di koy rendi ak seen kanam toog ndax ñoom daanaka ñoom dee bu lañ boole yemale ñoom àjjana lañ bëgg ñu ko amee baax loolu ah seen njiit yi nag xam ne nag ñu nekk nii caaxaan jeex na li gay nag caaxaan baaxee léegi nag jàkkaarloo jullit ñi ci def ñu commencé waajal xeex bi rafatu mu bani mu xalifa donte borom téere bi moom dafa wax ni sanata sittin waaye li gën a dëgër ci siira mooy mi ngi amoon sanata xamsin atum juróomeel ci gàdda bi yéen ci gàddaayee ba yegg ci Madina ba mu amee juróomi at comme ni nga xam ne ci atum ñaareel ba ca la Badar ñoom amoon waaye ci at yii di atum juróom-benneel ci atum juróomeel ca la xeex bi amoon ah mi ngi xam ne woon ak weeru Saabaan te ñaari fan ci weeru Saabaan rek ah julli ñi nag takk seeni dëbës ba mu dëgër te nag buñ xësee takk seeni dëbës nag dootuñ ko fekkee moo tax keroog ba yàlla bi Badar dañuy génn nag duñ génn wax dañuy génn duñ génn dañuy génn duñ génn ba yonent bi sol mbubbam ba taxaw ñu naan waa léegi dëppoo mu ne déedéet bu ñu xësee sol mbubb kay jeex na jar na yonent bi génn sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jël saxaaba yi ñuy wax Burayda ibn al-Husayb ah ni ko na dem pour xoolal ko xabaari gaa yooyu Burayda ibn al-Husayb dem dajeeg ci ñëw al-Xaaris ibn Abi Duraab Xaaris ibn Abi Duraab mooy kan Xaaris ibn Abi Duraab mooy kan mooy Xafsal Juwayriya mu dajeeg Xafsal Juwayriya ci mu nekk kilifa ga biñ dajee mu xamal ko fekk yi nag ah mu xam ne kon fi ne jeex na ñu daal di commencé nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël day ibn Xaaris te am nañ la Abadar daal di koy bàyyi ci Madina ni ko ñun mi ngi dem jullit ñi daal di daje keroog bi ñu dajee jullit ñi jàkkaarloo jiir ak bañ mustaliqa xeex bu nekk ci boo xam ne tawantey jaat yoo xam ne yàlla defal tawfiq ba comme ni ko al allaama al mubarak suuri di waxee mu ne li muy nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci benn jullit a dee ku ab jullit a ko rey par erreur benn jullit moo ko dee ku ab jullit moo ko rey par erreur parce que daf koo seen muy lu nit lu nit mu jàpp ne ab yéefar la mu xàcc rek dóor xam nga loolu léeg-léeg mu faral di am waxoon naa ne sa badar loolu amoon na am na benn bi ñoo xaarisa sax ah moom daa mar dem ca teen ba dinaa ne parce que jullit ñi moo tax bu ñuy wax muus ak yeew ci jullit la fekk baax keroog bañ demee badar bokk na ci seen stratégie guerre dañoo dem seet badar ñu wër wër leen gaa yi wër ñu wër wër wër teen yi di nekk ñu ni takk leen teen yëpp benn teen am ndox ñu takk teen yi ba mu des benn teen ñu jël ak gaal bee fekk parce que kuy xeex ci di nga soxla ndox benn boobu beneen bi ci des mooy ñu wut gars yi kenn ku ci nekk seet toll ki nga xamante ni boo ma toogee ba ngay gën a mën a def subhanallah technique boo xam ni ah li ñuy wax technique foofu la fekk baax tey la julli ji nekk ay yumbax ay yumbax li yéen ci yàlla na guta guta te guta bi tey dañuy nekk ay nit ay nit yu nëbale yoo xam ne dañuy ñu fënër mel ni am puuri am puusi saxaaba yi naan ko waaw yonent bi moom gis boobu xanaa dem fekk jullit dootul bare ci kaw suuf mu ni aka ngeen di bàyyi waaye da ngeen di lëbali ba mel ni puuri moo tax ñii seeni noonu di leen ñëwee yow benn jullit benn jullit daan dàq mbooloo salamata ibn akwa xëy na dàq lu mat juróomi téeméeri nit ñuy dàq moom kese moom kese salamata ibn akwa lu tax parce que ngëm boo ko xëjee ba yore mu mel na mu war a mel dimension bi nit ñuy sédd da nga koy dépassé maanaam loo mën lu mën suñu doomu aadama war man ci yow lay doon si moom moo tax bu xaarita demee di naan benn jullit seen ko waa ji defe naa yéefar nga mu xàcc rek doo ci bëri bi da nga xaarita la waaw mooy waa jooju nga xam ni ah moom la borom xam-xam di wax ni yéen yàlla bi dugg na biir àjjana dégg muy jàng alquran ndeke baax ci yaayam moo ko yóbbee yàlla ne dégg naa baatu xaarita ci biir àjjana kooku kan la waaw alquran jooju kan la jigéen ñi ko gën a xaarisa mu xaarisa dafa aw am na am na ko ci li mu wut di mu ne ko xanaa baax yaay fonk yaay est ce que ñun ñi dese ay yaay ñu ngi bàyyi xel gis na kon loolu la demee xeer bi jeex benn jullit moo ci faat léegi nag ñu jàpp nag soldat yi ñu jàpp seen soldat yi seen jigéen ñi seen alal fekk juróomi yi biñ seen xaaris te ñeen jàpp la bokk al imam Buxaari mi ngi nekk li mu ni bind naa jëlee nañ ci ibn Awn mu jëlee ci Naafiya mu ne yéen sàkkalam dafa daloon ci kaw Bani Mustaliqa mu jàpp ci ay jur ak ay jigéen ak ay nangam ak ay mbir yu bare bare bare bare nee na ci dem jàppoon keroog ci la ci weer yi te bokkoon te nee na Ibn Omar maanaam moom moo ko nekk ni nekk ni bii ni ko man bokkoon naa ci nga fekk xeex boobu keroog Musaafi Ibn Safwaan moom mi nga xamante ni moo nekkoon borom këram mbokk ci neen faagaagal léegi nag ñu def lu mat juróom ñaar téeméeri góor juróom ñaar téeméeri nit yoo xam ne jàpp nañ leen indi leen ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam عائشة رضي الله عنها وين كلمني لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا بني مصطلق وقع جويرية بنت الحارث في, في, في السهم لثابت بن قيس بن شمام xam ngeen affaire yi bu ñu dikkee dañuy séddale yonent bi day séddale bu dee jigéen ñi ne jëlal diw yow jëlal diw yow jëlal diw alal bi am nañ def jëlal diw jëlal lee jëlal lee comme ni ñu koy séddale te ñu xam ko ci sunna ndax du saa nii rek la am na aw séddale nee na bi ñuy séddale juway ne binte xaari dal ci bantab saa di jëm xay ci ibni chamman mooy waajo di nga xamante ni bokkoon na ci ñu jàppale suubul xajiraat sax suñ moom la wàcc ah ba muy wax ni man la yàlla waxal naan man ma gën a rëy laa ndax seet na ba wax ak yonente bi kenn du dégg sama laa ñu rëy di ko jooy ba yonente yàlla bi ni ko anta min ak min jël yow doo àjjana nga bokk kooku moo moo jëloon du wéere bi ci xaalis yéen bi jëlee du wéere bi ci xaalis aayisa mu ni wa kaanat imraatu wa kaanat imraatan xulwa mulaaxatan laa yaraaha axadun illa axadathu bi nafsi axadathu beneen ndaw si yàlla di ko dégg ci taar loo xam ne ku ko xool rek yéene ko sa bopp ndax ñu ñàkk li ko yàlla bindee mu ni fa atal rasul allah tastainuhu fi kitabatiha léegi taar yi nag ni ko man de bu la neexee su ma ma joxee nangam ma bàyyi la nga dem loolu mooy nga goree sa bopp maanaam indil trois millions ma bàyyi la nga dem bu la neex wala un million cinq cent ma bàyyi la nga dem su ko defee yow boo amoon xaalis da nga ko jox léegi gor nga nga dem fay sa dëkk ndaw si di ko saabit waxee loolu mu daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg leen Aïcha mu ni ko wallahi ma huwa illa an raaytuha ala baabi hujrati fa karihtuha dégg mu ni fa karihtuha wa alimtu annahu sa yara minha ma raaytu ba ma ko gisee rek laa seen xar kanam xool fëri ma commencé ko bañ ma xam ni kii bu ko yu dara ci ci sa ko tak jigéen a bëri bu ci xoolal Aïcha bi baax ak ñoom ragale yàlla kon ku mu jàpp ne sa soxna dafa dafa yegg ci yenn martaba yi ba muy def yëpp yu mel nii nga bëgg tukkal àddina bi yëg wax dëgg yàlla waroon na fi mën tukki tukki ci def bàyyi leen ñu def ñu leen yàlla moo ñëw bàyyi leen dëgg nag buñ ci ëppal ñoom la na sama mbokk ma naan fiir ak néeg la ki ci gën a ëppal mooy tax ma naan ba xëy di jënd fa waaw kooku moom moo ëppal moom waaye am na loo xam moo ñaar suñu borom jigéen sama kalaat bi nga xam ne da ngay daaw man nga ñëw seen nga taxaw kenn sax ñu defe da koy waaj a tax sax jigéen noonu la nag ay tane dama ko xool rek ah man kii lii de suma amoon la ma gënal du ci nekk ndax xam naa bu ko yeneen ci gis di ko jël soxna ah waaw yeneen ci bëgg la baax comme yëpp te ndaw si ndaw si malgré que taal kese waaye dafa xam nga ñu mel noonu en général boo dee xool ay caaxaan ay mooy yàlla ay nangam du nekk seen seen seen seen doxalin dégg ñu baax la ñuy doon xabaan dañuy baax loolu Juwayriya nee na fa daxalat alay mu dugg ci moom bindikee mu ne ko yaa rasulullah ana Juwayriya bint al-Xaaris ibn Abi Dura sayyidu xawmi man de may Juwayriya doomi Xaaris bint Abi Dura nga xam ne mooy sangam waa dëkkam man kat li ma dal ci mujj ba mi ngi nii gis nga ko yow moom xam nga ko maanaam yaqa alay gis nga ko nii fa waxaatu ci sahwi Saabit ibn Qays bañ séddalee damaa dem ci Saabit te Saabit nee na ma kaay ma jox la nangam nga gore man nag dama seet seet lu gis ni gisuma ci su gën a baax ba mel ni yow ma yaakaar ni su ma gisee di ñu dimbalee lu ma goreelee dem sama yoon wallahi yonente bi ubbi woon na kanam sallallahu alayhi wa sallam yow ñu ngi la jàpp président de guerre war laa caw war laa rey war laa nangam nga dem ba ca kilifa ga war a def loola naa ko dimbale ma mën jot dem sama yoon parce que dafa ubbi kanam walaw kunta faddan qalib al qalbi lam faddu min hawli dañ ko ñëwee woon sallallahu alayhi wa sallam moo tax taarix dafay wax ni ku mel ni Muhammad ci ay jëf ba xoolee sax ci ragal yàlla bi ci ay jëf lën cee doo si suuf ci def lay ko yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw ah wa hal laka fi xayrin min zalik gore nga bëgg dem sa yoon mu ne ko waaw waaw mu ne ko boo amoon lu ko gën doo jëla waaw téeméer laa bëgg ngir am may la junni kay wax dëgg yàlla damay jël boo amoon lu ko gën doo jël mu ne ko waaw mu ne ko def naa la sama soxla jeex saxaaba yi noonu lañ doon xamee ne yéen bi jël bu fekkee dafa am kenn comme tànn ci mbooloo comme juwéy ya comme comme ñeneen ñi soxi yaag ñooñu bu jëlee kaala bi muur ko rek nga xam ni déet su gis rek xale la gën muur muur seen xar kanam su ko muuree da ngay ci ci saye ci jàmm yonent bi gën na ko soxla sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar mbokk yi xoolal ci orma saxaaba yi séddoo nañ ba noppi kii jël paaka fee kii jël jaaj kii jël juwérie kii jël kee kii jël kee kii jël kee ba séddale bi yegg naka la saxaaba yi dégg ne yonente bi takk na juwayriya bint al xaaris kenn ko ci nekk yel ba ni ma nga yoroon ne man rus na maa jàpp koo xam ne gor la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mat juróom ñett ci ñii nit ay buntu kër yu bari ñoom ñëpp ñu gore ngir benn jigéen ji nga xam ne nekk na soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii laa tàmbalee woon moo tax borom xam-xam yi ku gën a am barke ci aw askanam ci sëyam gisuñu ko dëkk yi ñëpp daal te yonente bi ah allahu akbar bu doon ñu ne da nga fi nekk di xubbale ko te naan ah yéen kay li ngeen def baax na bu doon ñu ne say xaaj bi dañu wax li ngeen def baax na yéen bi dañuy déedéet tànnloo naa leen yëf yi yéen a ko moom parce que ma leen de bu leen neexee jël leen seen seet di seet ndax yéen a ko moom bu leen neexee def leen li ngeen bëgg ñu ne ko yonente bi ñu def moom neex sallallahu alayhi wa sallam gis la ah ay rek lam dam la ñam na yonente bi jël la ko soxna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci nag tey ci kéemaan bi gën a rëy ci moom génne sa kër baal dem sëy jóge ba ñu jàppale ko nga far sëy ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal ndekete yàlla bu nam nee defar mbir dana ko saxal ba mu sax dana ko saxal ba mu sax ba nga ni ci duggut li muy defar fekk loolu rek la bëgg man yuridi llahu bihi xayran yusuf min moo tax léeg-léeg fitna ñëw nga bëgg koo yàlla fekk fitna yee fitna yi mooy saabi di am gën war naa ubbi lu xewul ngay mel ni man sàggan a sàggan a sàggan ba fitna bëggoo ci yenn dara gis ngeen borom bi taala ibn abi zayd dafa amoon soxna soo xam ni fa tabarakallahu xayrul xaaliqin soxna su doy waar soo xam ne ndaw nga yi sax dañ doon kii dafa nag ci waa waa seen bopp wàcc mu ne déedéet mbaa su ma ko wàccee suñu borom du ma indil natt bu ko gën a rëy kon daal ma yem ci bii gis nga ni la saraf doon dundee yéen yéen nga natt yi xéewal lay bëgg a xam ne maa ngi dañu ci ne imam jooju doon jàngale ci kon al masjidu nabawi jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna si mel ni saa yi gën na si gën a yàq saa yi du yàq xaw ma ci kii bi mu ngi doon benn bi benn bi soxna si romb ci jàkka yonente bi fekk ko muy jàngale mu taxaw ci buntu ba di ko xool di ko xool di ko xool bu mu nekk mu dem fekk sëriñ bi gis na sëriñ bi ñibbi ci kër bi ne ko ah loolu de seen naa la tànk nga taxaw waa léegi loolu xam nga fekk yu am na martabay xam-xam ba jàngale ci jàkka yi ndom gi yaa ngi leen wër sa waay dina bëgg a far for wala ndax bëgg ngir yàlla xanaa loolu waroon naa tax mu xam ne kii nii fonk nañ ko naa ko fonk soxna si nekk kuy yere bi ci yàq dana yere yow nekk ci biir jàkka yeneen si ñun ñëpp ngi toog ñu seet ormal yeneen si ñu déglu kay ba tax ba tax yi waxoon tax xamul li ngay wax kon kon sam dégg mooy wax ba waa tax yi wax waxee boo taxee sa law ñaan kon yi ay xeeti nag la waaye dafa doon wuy kenn ku ci nekk da doon teera comme ayub wuy ko ngir ñi yàlla ko dala léegi day jiital ay jafe-jafe ah fekk inna ma al usri yusra nga ni waaw mu ne déedéet inna ma al usri yusra ah da koy baamu moo tax amal ne kon du neex kon day naqari benn yoon neex ñaari yoon mu ne lan yadni ba usra yusra waaye ñaari jafe-jafe mu ñëw fët benn yombal dóor ko mu daal waa déedéet lan yadni ba usra yusra kon day neex ñaari yoon doo ko nekk benn yoon ndax dañ fa inna maal usri yusran nga ne day na muy déet inna maal usri yusran kon xaw mu nekk doo ko nekk kon juwee yee nii la ñëwee daal di bokk ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye foofu bala may jeexal ndax li may leeral mooy ndax Aïcha day def comme ni jigéen ñi def si bu ma woon sax sama borom kër jël ko ba pare commencé di ko bundu xataala ah yaa fi lii yaa fi lee yaa fi lee ba nga duggee ci kër gi bay léegi lii comme ni ko jigéen ñi defee yooyu jëru ko daam yoo xam ne da nga yàq sa pas-pas yàq sa ngëm yàlla ah nit ñi gàtt ndax yàlla ñi def def na ko ba yàlla moo dogalam yàjjub bi ngeen daje ci ron keppaar bi sàngam mu neex la am na mu naqari la am na ah comme am na ba noppi nag saa yi cee ñaaw dëgg la fiir dana ne ci xol ci kat am na jigéen ñoom dañuy jàpp ne boo gënee taar mbaa boo gënee nangam la ñuy gën a bëgg fekk déedéet wallahi la abid nit dana am ay soxna ah am ku ci gën a taaru fekk du kooku la gën a bëgg ah ak am li may wax ak dama koo xam nit dina am ay soxla nga gis koo xamante ni maanaam amul benn njëriñ ci àdduna ci nit ñi gis maanaam mbir mi nekkul ci nattukaay yi ay moo gën a rafet moo gën a lii moo gën a laal xam nga lan la gën a ragal yàlla subhanahu wa taala beneen bi rek mooy yàlla soo dama yàlla ci suratu xam bokk na ci li tax seen jëf yi yàqu lu tax sëriñ ma am jëram nazal allah dañoo bañ yàlla wax yàlla moo wax moo yoral am benn ñaar ñett ñeent gis nga kon ay solo la def gisee dañ ñu ànd jàppalante dimbalante dér kenn du ci jiiñ moromam lu bon nii la soxla yéen bi malgré que yi ngay dégg Aïcha doye Aïcha kële Aïcha ke waaye da tee ak ragal yàlla bu ma sukk ci biir kër gi la doon ànd kenn ku ci nekk ormal moromam orma di doye da ngay séeneel sa borom lu baax xam ngeen xadis bu siiw boobu ngeen dégg fii moo ko solo subhanallahi adada xalqi subhanallahi rida nafsi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata kalimati ndaw si moo ko solo xoolal ñaan bu am solo boobu ñu wéyee ak ndëni yi ci nekk loolu ngeen ne dama xëy toog julli ba pare fajar toog di dikk di dikk di dikk rek yéen bi dem doo xëyee doo xëyee doo xëyee ba mu naaj ñu ñëw ñu ma yow ba ma bàyyi ba léegi yaa ngi toog fii ah yow jàmbaar nga de noonu def mu ne ko maa ngi doon wax nangam nangam mu ne ko man de wax naa ci ñeenti baat yoo xam ne moo gën boole li nga ci wax yëpp loolu yi mu ne ko ban la gaaw a ñu bëggoon ci yàlla ñu ni ci biir buum ci tiyaaba noonu la saxaaba yi melo mu ne ko gaaw a ci la ko jox zikr bi mu bokk ci askaru sabax wal masa kon xadis bii moom moo ko solo moom jóore yi mu ngi ci buxaari wala mu ngi ci muslim kon yii ay njàngale la yoo xamante ni li mu ñuy jëriñ mooy ñu xam ne saxaaba yéen bi lii lañ doon dundee ulaika al abxaar gaa yu sell yu baax yi yal na yàlla defal ñu ñu mën a mel ni ñoom ci góorgóorlu ak ragal yàlla ak sellal wa ma dalika allah bi aziz wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain